salaamaaleykum monsieur Omar Sow ñu ngi lay nuyu di la maa ngi leen di fay. bu fekk la fii ci Maristes ci bergerie Khadim Rasoul. waaw daaw ñëw nañu fi ci heure bi def émission ñu waxoon wax dafa waxtaan bu am solo mais dañoo mel ni li ñu gisoon daaw dafa noog li ñu ci waxoon ciy commencé gis lu am solo mooy autosuffisance en mouton de Tabaski bi xam naa ni am na loo xam ne duñ ci dellu si waat na wax nga ko ba pare mais tey instant bi na nga gisee ni xar yi ñu Dakar mi ngi commencé fournir boppam ay xar parce que. ñu def nañ benn sortie tournée bu ndaw nan nga gisee loolu. waaw euh, maa ngi lay remercier Cissé Dia di euh, nuyu éleveurs yëpp yëpp yi ci Sénégal yëpp euh, ñi nekk ci xar ñi nekk ci nag ñi nekk ci nganaaw bépp éleveur daal di nuyu président association yëpp di leen jaajëfal ndax ku ci ne gis nañ ni liñ doon wax dugal nga jéem nga dugal sa loxo def effort ah soit nga encourager ay nit soit yow ci sa bopp nga liggéey ci xar yi pour que vraiment tabaski ren bi xar yi mën a doy li daan wax autosuffisance en mouton de tabaski alors comme li nga wax rek euh, lii dafay dafay jëm kanam xam nga dañu yàggoon nekk ci élevage de luxe parce que nous sommes un ci élevage intensif Nous euh, avons a dugal suñu loxo ci autosuffisance en mouton de tabasque. mais vous depuis quelques années nous avons encouragé wax pour que les gens une partie de l'autosuffisance autosuffisance en mouton de tabaski une partie continue vraiment le travail génétique bi def et loolu les éleveurs ont compris et moo tax ren nga gis vraiment bo xolé man sama daral ren wa deug yal mar nek jot bi bëriwul ndax responsabilité yu mag yi am mais xalé yi ma fi tek man bima ma qualité xar yi fi gis ak quantité bi ma bi bi ma fi gis ñu écoulé ko man daf may yéem sax. waaw mais li nga doon wax nii euh, laadum de luxe waxoon nga ko fi daaw gars yi comprendre mais man dama gis ne dafa commencé feeñ ren ndax dama dem Darou Liberté 5 gars yi commencé comprendre que ni opération tabaski dañu war a indi xar yi joxe ko mais loolu tey fan nga ci tool yow. waa loolu moom c'est naturel waxoon naa ko man xamoon naa ne fa lañ jëm parce que dafa am quand depuis quelque temps une crise dans la commercialisation du laadum. nit ñi dañ yor laadum laadum yu bëri na mais mënuñu ko jaay parce que fañ ko tegoon marché bi attalu ko laadum ñëpp mënuñu ko jaay ay millions te téye ay laadum ren ba déwén li nga ciy dépensé les charges récurrentes dafa métti te mënoo ci am benn retour d'investissement loolu day découragé ay éleveurs moo tax le le le message de conscientisation et de réajustement

suñu consommation de metti il faut ñu góorgóorlu au delà de la tabaski aussi ak euh, produire en continu suffisamment de moutons pour des événements bu nous ñu mun fournir en viande bien évidemment du mouton rek il y a les bœufs aussi hein, dañ ci même les porcs parce que suñu mbokk chrétiens yi tamit bu seen événement ñëwee ñoom dañ koy soxla ah, ci lañ bokk nous ah, faut intensifier encadrer mais rapprocher l'élevage intensif et l'élevage extensif C'est ce que ci kanam ah, pour wax man sama ak sama parce que man élevage de développement exemple rek ren sama ma doon croiser France di ay local ay ren ay six mois ñii ñëwoon daaw jënd leen bi ñëwee ne ma mais yii ñoo judd woon taayale bergerie ba géejawaay ñoo nekk rek la ñu ngi nii te ñoom ñëpp fi mu nekk am nañu ay cinquante soixante kilos mais loolu buñ ko amee kay duñ loolu mun na mun nañoo dimbali ci autosuffisance si bien sûr loolee liggéey bi loolee liggéey bi. mais léegi instant bi fi ñu toll ci ci beneen fànn bi mu ngi xam li nga li nga wax léegi muy côté poor yi ak nak yi. ay ban ban Sénégal fan la fan la war a euh, situé pour liggéey ci loolu. fu mu war a liggéeyoo mooy dañu war a euh, gën a intégré élevage ak agriculture mu càmm ak mbay loolu foog ñu def ko te niñ ko mën a defee am nga état bi dafa indi lu ñuy wax les domaines agricoles communautaires gis nga loolu dafa am solo. day nekk ay domaines yoo xam ne ay deux mille hectares lay doon deux mille hectares lu ne xet na ci L'une ce nañ ko ci produire un peu partout def koy def au Sénégal ci lool la bëgg au niveau des grands ensembles nous avons un di waxtaan ñu plan d'action pour que partout au Sénégal nous puissions orienter éleveurs yi ñu domaine agricole communautaire en am du boxe box di développer à côté des agriculteurs pour su ko intégrer les filières physiquement Vous pare de ça va

tey ñu gis ni légui euh kuréel yi bari nañ yow yaa ngi dirigé benn kuréel bu mel ni Renades bi ngeen romb am 2 ans fan ngeen tollu ci liggéey wa ñu ngi ci liggéey bi xam nga les les les associations naissent grandissent essaient de se de de se mouvoir dans l'espace et puis font des évaluations xam nga man j'ai un esprit dynamique parce que man xëyu ma nekk tey li ma nek dama tambali lu yagg di jaar am ay jaar-jaar di évaluer wu di def sama autocritique di xam ne lii moo motul ci man dama koy wuti feneen mottali ko dem xool ñi ma war a àndal dooleel ma gën ma dooleel ma ànd ak ñoom tey pour man le NADES li mu doon def ci joxe ay géniteurs ak yooyu yëpp c'était des actions nobles te résultat bi dañ koy gis parce que nit ñi ñu ñu joxoon xar yi am na ñu ci am yeneen i xar ñu joxoon bëy yi waxi nopp ñu joxon poor yi sax keroog j'ai été surpris parce que man Thiès la yaro Diourbel waa Diourbel la mais sama famille Thiès lañ nekk parce que Thiès laa yaro mais sama papa ma bi nga xam tey mooy suñu xalifu kër mais dafa ma woo di ma wax ni mais yow dafa am ay catholique yu fi ñëwoon di la remercier ndax ndekete da nga fi ñëwoon mais fi ay port te ñun ñu ko sax ma ni tey Omar saw lu le boo koy def mais mu ne ma nag c'est bien parce que comme yow sa passion la te yow danga nga a gëm loolu et puis li ma ci neex mooy wane nga ni Sénégal yow nekkuloo ci ay man jullit laa duma def lii ñun ñëpp ñoo bokk yam ah ku nekk la muy def da nga ko ci war a jàppale donc pour vous dire que ni li li li Renades doon def loolu moom lu baax la maintenant nag looy def aussi da ay dem nga koy évaluer di ko réajuster xool doo ciy taxawee man aujourd'hui li ma gëm boo évaluer gis nga suñu association yi man ma ay association de quartier yeeg yooyu loolu du dara loolu c'est des mécanismes rek pour mën a dajale nit ñi mais ñooñu yoyu dama lay wax gis nga ay ay structure deux 300 trois personnes mënul def dara amul njëriñ surtout bu dee sax ñako ko diriger mënuluñ leen dara parce que bo bëggee développer des structures da ngay am des dirigeants yoo xam dañu am njëriñ mën mobiliser structure bi lu nga xam ni day tax nit ñi mën a yokk mën a liggéey boo demee dans les pays développés ay association d'éleveurs de dix mille quinze mille vingt mille personnes nga fay gis ñooñu tey xoolal dañuy toog ba mu neex leen ñu ne état bi ñun dañoo bëgg ndàngam ñun ay papier la ñu soxla état bi ne fu ngeen di jëlee xaalis en une fraction de seconde ay milliards la ñu teg ci table et de l'argent frais wax ma tey ban association moo ko fi mën amul association éleveurs yëpp bu dul président bi yàlla may mu am ay moyens boppam di ci dugal loxoom di ko ci jàppale kan moo kan moo ci mën a def ay millions wala kooko ci am aussi mënoo ko ci def parce que da nga am euh, le beneen liggéey ma xam ne boo ko jëlee bàyyee liggéey boobu def ko da ngay suux donc aujourd'hui li mën a fi ñu toll tey te loolu du des rek naa muy Renadeso FENAFO euh, ANIPEL ak ñooñu ñëpp tey bu ñu bëggee wax dëgg yàlla élevage jëm kanam dañu war a retrouver wu autour d'une plateforme plateforme boobu nag day nekk levier levier ba nga xam ni su fekk ñiy bu dee affaire xar la ñu bëgg a régler plateforme bi yëpp ay mobiliser wu quitte à ce que bu dee xar yi dañu soxla tey ñun ñu war a teg ci table bi deux milliards pour capter un financement de dix milliards ñëpp koy boole doo jafandoo ko te la muy la muy charge ba ñuy teg éleveurs yi du métti xam nga je vous ai dit boo jëlee cinq mille éleveurs tey Sénégal nous regrouper vous ku ci 10 000 50 millions ku ci 20 000 200 100 millions mais 20 <laughs> 000 par mois 600 millions au bout de 10 au bout de mois c'est 1 milliard hein ainsi de suite il faut que nous dépassions dépasser nos propres personnes par rapport à nos petites associations man di ma koy wax lolu duma ci sax delu gnaaw gis nga association yépp nous créer pour def ay foire ak ay ay détails te foire yi sax mënuñu ko ay bori kese ak solal nit ñi dimbale ma ci sponsorisé ma sponsor yi tay nañu boo leen bool euh, yow euh, jàppale ma ci lii logistique ba ñuy luyee sax après xamuñu ne nit ñi dañuy am retour yi lu ñu fay nit ñi muy indi ay problème te loolu yëpp li ko indi mooy parce que man li ma gëm li ñu doon doxe ci association yi ak éleveurs yi da leen di tardel da leen di nax nekk ci ay foire bu foire jeexee nga nga teg affaire yi bu déwalee nga ñëwaat dajale alal jëm defaat ci doo jaay say xar wala tey tey te loolu dafa metti li indi crise u laadum ñaata association laadum ñoo fi ne di def ay foir di ci def ay millions te amu ci benn président bu ci mën a ay éleveur am ay xaram ci ay quelques présidents la ñuy compter pour tey bu tabaski jotee sax ñu mun leen jëndal seeni xar loolu loolu ban sens la am. ça n'a pas de sens hein donc yow da nga war imaginer ay solutions yu nga xam éleveurs yi nga diriger ñu mën di di am ay de création de richesse man pour man liggéey foofu la moi, dootul moo tax man li ma gëm mooy gis nga suñu association ñun même des activités yi ñu doon def pour moi ça ne se fera plus comme ça dañu doon lancer hein l'esprit un, hein, esprit renades, maintenant avec esprit bobu, il faut que nous intériorisions ko ñu gën ko développer nuñ ko wara développer le Renades aujourd'hui après presque deux ans suñu nous yi mu 1000, ma tey il faut que nous élargissons élargir les bases mais élargir ko aujourd'hui du ñun rek ñokoy def Renades mom rek ta porter le développement de l'élevage il faut mon bokk ak yenen natango organisation professionnelle yi fi nekk. loolu nag déggoon naa nga ci wax ba nekkee mais loolu fo la ci toll ak nan ngeen ko bëgg a doxalee. waaw loolu y a une idée y a une idée l'idée moy li ma don développer léegi c'est-à-dire que suñu association yi prise individuellement duñu dem ay metti duñu dem amuñu. Eh, ressources yi ñu war amaguñu sponsoring bi nga xam ne moom te sponsoring pour nga am ko da ngay liggéey da ngay nangoo investir man sama bergerie bi li tax ma ay sponsor bu len leen lima li ci investir ba tey sponsor yi nangu dugg ci sama bergerie da ngeen laan c'est pas possible li ma def ci ci ci ci ci ci investissement ci bergerie Khadimou Rassoul pour que tey bu bu yegg si fii pour que sponsor yi ba confiance dafa métti association yi dafa guñu loolu parce que dañuy toog rek may leen ñu repasse jox leen ñu xaalis ñu def lii def la déedéet aujourd'hui il faut faire cap sur le regroupement des grands ensembles je parle des grands ensembles man waxuma association yu ndaw ndawaan yi parce que les associations que les gens ont créées dañ koy créé noonu rek amul leen benn njëriñ benn njëriñ la amul du dem éleveurs du ñu dem président ba du dem parce que moom mënu sax mënul génne ci poche am pour financer foire dañuy obligé de demander à gauche à droite pour mun ko def donc si démé demee sur les grands ensembles te du affaireu kuy jité ak xam nga il faut que ñu ñu élever un peu suñu niveau maintenant nak élever ce niveau dafa laaj nga am le vécu am l'expérience am aussi calibre intellectuel te élevé niveau boobu moy ñu weesu ay structure kuy diriger kuy né président kuy né leader, déedéet loolu ay détail. la plateforme bi man aw ma jotu toog tey di bind document fi ñu toll moy man waxtaan j'ai ci président Omar Kane amna na idée ci nan la wara le document d'orientation stratégique parce que loolu moy la première étape waxtaan naa ci Arona Galoba il adhère

Parce qu'il faut un mouvement d'ensemble. Et avec un fort consensus. le président Omar Kane moom je ma bu ñu réfléchir ak l'idée yi parce que dama né ko li gën moy ñu am ñuy structurer idée yi ñu fexé ba association bu représentants. am représentant mais comité scientifique bobu nak dama bëgg mu leer dañ du affaire parce que mun nga nek président te yow motulo pour mën tok def réflexion mun nga nek trésorier wala lenen te amulo expérience amulo vécu amuloo niveau intellectuel bu la may nga mën a porter une réflexion li ñuy def ni du ay caaxaan donc man lima leen wax moy il faut que ngeen définir terme de référence qui ki ñuy désigner mu ñeu représenter grand ensemble

ni lañ ci bëgg suñu loxo li lañ bëgg créer comme hein, valeur ajoutée parce que leen di wax il faut ñam mutuel mutuelle de crédit de santé il faut ñam coopérative coopérative euh, d'habitat des des éleveurs etc. il faut mettre en place des fonds pour garantir les activités des éleveurs da fay soxla ñun ñu mëna mobiliser des ressources hein am un bon levier donc lolu buñ ko défé ah nee buñ ko ba. Euh, le comité scientifique liggéey ba ñu am document bi partagé ko nit ñi dañuy woote ñëpp ñëw taw ñu wax éleveurs yi fi ñu jóge ak fi ñu yegg si ak lu waral ñu bëgg a def li ak fu ñu jëm benn par benn bu leen ko waxee nag ba ñoom ñu d'accord ci su boobaa éleveurs yi ñooy wax nan la koy conduire mais du ma demba du ma paate mooy wax kii boo war a jiitu kii topp ci affaire jiitu yàlla moo koy def te njiit kenn du ko xëccoo da nga koy mot mën ko dégg naa la soo di wax lu am solo mu ne suñu association yi foo nga yor loo leen mën a dimbalee foo nga am xam-xam boo leen mën a taxawoo pour nga mun leen a yor mu mun a dem mais association pour association structure pour structure rek loolu moom man moom vraiment loolu man nekkatuma ci man lu may l'on a l'esprit dynamique là-dedans. il faut que nous évoluer nit devons remettre toujours en question comment réajuster comment réorganiser pour aller de l'avant aujourd'hui il lañ que te nous ci neex ay ay ay ay hein, vraiment pour que nous aussi nous briser la glace hein, parce qu'il faut que l'éleveur yi entre responsables je rappelle que ni man je je je je je n'ai pas d'ambition pour tout ça sama ambition am lan la fexe ba ñu poser ay acte yu jëmale élevage kanam voilà parce que loolu c'est le plus important ki koy piloté wala équipe bi koy piloté di koy gérer peu importe man su ma tegalee idée bu leer boo bon ni fii la war a jaar sama jaan wàcc na li ci des yëpp na nekk élevage rek lolu dafa am solo parce que vraiment moi je trouve qu'on perd énormément de temps ari ren liñu def ni man lima def ni ren te sax gëj naa ko organiser ni pour man lolu moy ñëriñ pour dimbalé surtout ñuy yar ladum parce que ñom dañu am problème xari yi mënuñu leen écouler parce que ku ci ne yaa ngi doon xaaraam ay millions mais comme les gens ont compris que da nga wara trier li génn ci tabaski bi nga continuer sa sélection continuer sa liggéey man xàmmewuma relève euh, Renades xàmmewuma FENAFO xàmmewuma REIT man xàmmewuma éleveur banlieue la ci ku ñëw indi say xar ñu waxtaan ba juboo ñu fay la xobet xobet amu ci kenn ku nga xam ni tey mun nañu la ameel dërëm te loolu ci am solo dem nañu sax ba ñu indi woon dem nañu jëndiwaati xar ñëwaat te loolu moo ci intéressant même région yi ay géewul sax ñi di laa fay xar ah Louga ah Kaffrine Mirkilan eh, eh, ñi nga xam ni ñooro am na ñi nga xam ni dañu dégg sama tur dégg sama bergerie ba ñëwee ma ne leen ah xar yi ngeen am indi leen ko bi ñëwee vraiment ñu waxtaan ba juboo ñu wàññi leen seen xaal ñu dem loolu affaire bi foofu la war te gis nga il faut que aussi les présidents là aussi ñu jéem a def loolu cest à que bu tabaski jotee ñu jéem ko préparer jéem a jàppale seen yi ñu yor pour que ñu am quelques ressources parce que éleveur bu ci ñëw nga mun ko fay xobet xobet 5 millions ci xar yum la jox mu dem mais dimbale nga ko parce que 5 millions am na ci 500 000 francs de bénéfice ah même bu dee xar dafa dajaloo ci lawam mais 10 20 30 éleveurs beneen président defaat ko keneen defaat ko su boobaa day dox nañu góorgóorlu te liggéey moo gën vraiment sur place bi ñuy def amul njëriñ. bu la déggee daal yow kon élevage en général yow moo ngay wax kon li nga plateforme est ce que xalaat nga ci bi. très bien. mais c'est bi tard parce que nous, élevage intensif nous ñuy devons mënuñu def autosuffisance en mouton ni en viande il faut nous rapprocher l'élevage euh, extensif et l'élevage intensif parce que l'élevage extensif aussi a beaucoup de limites euh, Il y a tellement d'infrastructures au Sénégal politique bi état pour même l'accessibilité de l'eau pour nous mën même de la culture irriguée pour nous euh, faire avec les DAC le ranch de Dolly etc. cetera est est état bi nous mu def ñun maintenant hein, pour réorganiser wu faire un avantage Nous avons lii la tubaab nous wax par avantage comparatif élevage intensif un avantage bi ñu am mooy dañu yor produit exceptionnel yu nga reconstituer et améliorer en même temps notre cheptel national ñun c'est suñu avantage ñëlee nag xam mooy seen avantage ils font pour le grand nombre et le grand nombre boobu mooy ñi nga xam ne amuñu doole ñoom ñooñu la ñuy gën a liggéeyal ñaar yooyu buñ ko boolee ñu daje non seulement ont am produit amélioré de luxe danañ un produit moyen ont un produit social amélioré donc man ce que gëm ca ci yooyu la plateforme bi nar waxtane ko mais lolu dole mokoy def du ay association de de 2000 xama 1000 personnes ou bien 100 personnes avons une association ñofi nek 1000 personnes euh, mo am bo démé sa amul hein du association de 1000 def donc encore une fois travaillons vers ça hein suñu ressources des am nous ko jël def ko ci ay projets man ci projet lay liggéey légui aujourd'hui li nek sama bop moy comment faire de sorte que parce que sponsor yépp ñu ngi topp sama ginnaaw pour que ñu reconsidérer waat suñu magasin de référence loolu laa bëgg a xoolaat nan lañ koy gën a defaraate mu am sécurité ah yenn déperdition yi ñu amoon dootul amati ñu mën ko illiwaat man loolu sama objectif la sama beneen objectif mooy comment autonomiser nos antennes régional xam nga dafa am benn benn politique bu daat am fii te même ñun si état bi da ko daan defee ba bàyyi ko boo tax tey boo gisee état lu muy wax équité territoriale équité territoriale boobu lu ko lu ko indi mooy dafa xam ni dafa seddoon pendant longtemps lépp lu doon def dañ ko doon yemale ci capitale bi ak peut-être ville yi ko gën a jege ah mu am Sénégal bi nga xam ni dafa xaw a naat ak Sénégal bi nga xam ni dafa xaw metti mais loolu lépp jeex la léegi di koy rééquilibré ci élevage nag ni ñu war a doxee tey man dama gëm ni mënuñu am antenne régionale Saint-Louis ñuy cotiser chaque année ñii dix mille ñii te bu xaalis ba ñëwee waa Dakar a koy jël dugalaat ko ci ay kenn xamul mu naax saay déedéet yooyu jeex ku nekk fa nga nekk man dinaa la autonomiser ñu fexe ba nga am sa fonctionnement autonome mais da nga ñuy rendre compte di def sa bilan parce que aussi kuy def dara ñu délégué la ko da nga war a rendre compte te booy rendre compte nag mooy wax rek lii lañ ma zéro la déparé fii si lii laa ci réussir lii laa ci am comme ndëkk sërëx et puis ñu daal di xoolaat ban cap la ñuy jël pour avancer loolu aussi ci sama mébét la leneen li ma gën a gëm mooy dañu war a dem ah vers la mise en place ah de filière yu nga xam ni dañu ciy jéem ñun am suñu unité de production d'aliments de bétail parce que man mi personnellement rek Je travaille sur un projet en italien, hein? on va mettre en place une unité de, production d'aliments de bétail, 24 tonnes par jour. Mais bon, c'est à l'échelle de mon cheptel. Parce que moi, il y aura il y aura char, il y aura bœuf, voilà. Mais, ni je veux dire, te que li ma daf ma may association comme c'est ñuy pays, ba comme pays nous ñu une unité de production yooyu moo jaral su ko defee xaalis bi mobiliser 40 hein? millions fi, 50 millions fi, 10 millions Fi, bu ñu ko Nous ñu servir de levier ñu crédible ñu mën di leb xaalis di parce que les grands industriels les les les les grandes sociétés les familles là ils sont sont partis de rien il faut que nous ñi xam loolu tey yal na ko de c'est une référence et il est parti de zéro il est parti de rien y ko fait, ko qu'on y a fait, va bâtir cet empire là il restera gravé dans la mémoire des gens pour quelqu'un qui est parti de zéro bâtir le monde Beldi. à ce moment ñun ñi nga xam ne nag dañu mutualiser li ñu am bâtir aussi un avenir radieux pour l'élevage ba loolu laa gëm mais nekkatuma vraiment sur ces détails là hein, ay foire ak il ay wax chaque ñàkk fayda yooyu loolu man nekkuma ci l'as, man cap sur luy développer élevage te comment ma xam comment ku ma xam ni yow ci disposition yooyu nga nekk man damay waxtaan ak yow ah fexe nu ma lay dimbalee ñoom parce que aussi loolu yàlla ko def man ci li ma nekk am naa ay possibilité su ma nekkee des gens qui ont des idées fertiles nga xam ne dañu dëgg pour avancer loo yëfi yi ñu mën a mobiliser ay moyens pour liggéey ci waaye mobiliser ay moyens pour ay caaxaan wala ay détails pare naa ci luy jëmale élevage kanam rek voilà. bon président xam naa ni li nga bëgg a émission bi.

dafa war a ànd ak mbay xam nga bu ñuy wax entrepreneuriat agricole ah mooy élevage dafa ànd ak mbay càmm ak mbayee ànd parce que c'était deux choses xam bu ñu leen séparer te je lance message damay jaali yàlla mu nekk un cycle ba nga xam ni hivernage bi dafa tardé ñëw mais si jamais par extraordinaire hivernage bi doxul na mu war a doxee liñ fi dundoon daaw jéeg war dinañ mun dundaat lu ko gën a metti parce que bu taw amul ngooñ du am dund bi day cher te day metti trop ci éleveur yi donc loolu aussi nañ ko bàyyi xel ñu commencé di ci réfléchir pour trouver des alternatives mais loolu li ko mën du Renardès ko mën du FENAFO ko mën du Réité ko mën c'est les grands ensembles bu dajaloo ñoo ko mën vraiment foofu laay yemale sama kàddu bi yoon di sant ñëpp di leen gërëm di leen jox rendez-vous ci yeneen i daje ci yeneen i jamono pour gën a weccante xalaat ci ah bergerie Khadim Rassoul moom wax dëgg yàlla xam nga man damay dem sax léegi ba génne ci sama bopp ndax euh, chance bi ma am mooy am fi ay xale yaa xam ni dañu mel ni samay rakk liggéey bi ñu liggéey ren man daaw ni ma impliqué woon sax liggéeyuma parce que à date d'hier

mais de grands éleveurs ñi ngi ñëw bëgg jël samay femelle jël samay tëng samay tëng parce que ñoom nee nañ dañu impressionné ci liggéey bi liggéey ci biir bergerie bi mais loolu yëpp ñoom ñoo ko def maa ko tàmbali man yàlla def na amatuma jot dama yor responsabilité yu mag war naa ci xajal sama njaboot xajal ci Relades xajal ci bergerie bi xajal ci sama papa sama yaay samay mbokk lool boo partagé wu ci loolu yëpp nag day xaw metti mais daal maa ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm sponsor yi aussi ndax wax dëgg yàlla c'est vrai man investir naa ci sama alal mais ñoom tamit par reconnaissance gis naa ni ñuy jàppale xale yi ci tabaski bi man jënduma ren aliment am naa sponsor yaa nga xam ni sax may nañ ma aliment te wax dëgg yàlla man defaluma leen publicité comme ni ma defal ñeneen ñi publicité parce que nous avons nañ ma li ñu gis nga koy def ñun bëgg nañ parce que c'est très professionnel pour que affaire bi gën a Et nous te euh, di wax ni éleveurs aussi c'est très important de plus en plus sponsors yaa ngi bëgg a liggéey ak bergerie donc nañu moderniser bergerie nous gën ko professionnaliser gën ko defar hein, pour que sponsors ne ñëw dugg ba ci bergerie parce que ce qui est le liggéey de def te gisoo ci yokkute booyee boo nga dem seeti la une structure officielle pour gëna développer seen activité parce que ñom dañu bëgg a am un truc audiovisuel vraiment pour laadum du monde vraiment ils sont très ambitieux man leen man jàppalewu ma leen ndax man président Omar Sow président de Renades jàppalewu ma leen ndax man may directeur général dama leen a parce que dama leen naw xam nga lutax yeen xam ngeen ni ñëpp mënuñu liggéey ci fonction publique ngeen nekk ay initiative privée noble man leen pour que seeni morom imiter leen def comme yéen looloo tax ma vraiment sama moyen matériel bi jox leen aussi ku parce que dama la dama la et puis les ma yow bokk côté je baisse jamais les bras man xëy na nit ñi dañu xamul mais bu ñu xamoon fi ma jógee ma yegg si fii danañ xam ni man du ma quelqu'un kuy baisser les bras te dama mës a gëm ni lu mu metti metti fa muy mujj day neex te dafa am fu ma ko sukkandiku fu wóor fu tax ba pare nag yàlla may ma toujours damay xalaat nan laa war a def pour gën a lu gën a yokk yow aussi ci loolu ngay dox. dama lay encourager initiative privée bii wañ wàññi boo gis ci benn lay commencer. boo ci continuer sax ci nii gëm ko yàlla bu la la ci defal lu raw sa njort te jàppal li ma je toujours la lépp lu ma pour jàppale la dinaa ko def rien que sa activité bii ngay def mu gën a jëm kanam parce que da ko jar a jàppale nga vraiment gis naa jàmbarte ak endurance ba nga xam ni ci yow jafe na gis ci xale yi tey lu leen découragé dafa yomb mais góorgóorlu rek man mii ci loolu laa déparé woon ba tey te ci laa saxit parce que les gens me voient comme ça foog lépp yomb lépp neex na mais damay nitu sutura ba may samay problème du ma ko exposé ci biti damay xam ni yàllaa ma ko teg damay góor góorgóorlu rek gën ko denk sama mbokk gën a gën a ñafe pour surmonter obstacle yi jëm ca kanam parce que àdduna looloo ci am solo li nga def lu rafet ak li nga liggéey rek la ñuy fàttali ci yow leneen duñ ko fàttali